ndaysaan waa géeje waay gépp gunge nañu ko yaa ngi jëm ci xare bu mag Fils de Balla muy ndaanaan ci làmb muy xale boo xamante ni làmb am nañ ci moom yaakaar waaye ñaari ndaanaan lañu boole Fils de Balla général Malika samp na béjjën bi noonu ndaysaan ma ngay jat am na lu muy wax am na lu muy wax ndeysaan am na lu muy wax am na luñ koy wax loo muy wax ma nga noonu ndeysaan fis de Balla ngi noonu di dugg si boot nañu ko ndeysaan duggeel nañ ko ginnaaw ndeysaan duggee na ginnaaw Fils de baala mu ngi duggee ginnaaw dañu ko boot ndeysaan <laughs> ndaysaan rakkama ko boot deret dafa foor ndaysaan kii mooy yan bu diis rakk Fils de la Fils de ngi noonu di dugg si ndaysaan ma nga noonu di arrière di dugg ma ngay dugg Adama Fils de Balla dugg na ndaysaan ma ngay continuer di dem ma ngay dem dañ koy góobu ba ca géew ba wala Adama ñu ngi koy arrière ginnaaw la duggee tegtal la ci làmb tànk yi laalut suuf ndeysaan ma ngay arrière arrière na ndeysaan ma nga noonu duggee na ginnaaw booy baa ngay dem latéral ci yenn xibla yi la jëm na ko ndeysaan wàccee na ko daw na Fils de daw na mu ngay wër ndeysaan ma ngay wër eh Fils de Balla dugg si na Fils de Balla na ma nga noonu Fils de Balla dugg si na ndeysaan xale baa noonu ñàngal na ma ngay sérieux concentré wu na ci bis ba ndeysaan

la géew bi boo gisee cimikaay yi nga xam ne am na mbër mu mag bu dugg si gis ngeen bagage yaa ngi noonu gis ngeen ña ngay ña coow ña coow ña coow ndaysaan ña ngay coow dañ koo bëgg a wër ñu bañ dañ koo bëgg wër mu bañ dañ koo bëgg wër ci làmb la bokk ndaysaan Fils de Balla ak général Malika général Malika dugg si na waa Fils de dañ koo bëgg a wër ndaysaan coow li na ci làmb coowu géew la coowu sport la coowu géew la. yëpp nag Adama général Malika ngi noonu ci oto bi ànd naag waa Malika ànd naag waa benn baraak ndaysaan ma nga noonu sol njoxos ma ngay socc xaw ma bant lan la di socc. ma nga fuddal loxo ya loolu yëpp tegtal la moo nga takk ay gàllaaj ma nga yor yu bari bëri bëri ci loxo yi lépp de ko la buur grand combat waaw 16 heures mooy fii waroon fekk waaw lu tax waaw loolu tamit war nañoo laaj lu tax dig est-ce que du ay digle waaw mun naa nekk digle waaye est-ce que Serigne Seko ni baal ba jant bi soo nga waaye Zé mi ma gis tey. Uh-huh. ñëwul pour ñàkk de Cheikh Oumar. ñëwul pour ñàkk gis naa ci moom concentration bu garaaw bu. ma ni dama ko fekk Adja Senghor. Mm. fekk ko teere gaal gi. Mm. fekk ko Mbour. Mm. fekk ko Fatick. fekk ko Fayako. c'est un très grand champion. ndaanaan la moom général. ci avenir lamb la bokk. ko xam fi mu jëm la waaye ki muy dajal tey. fils de Balla fils de na ko ñëwuma pour ñàkk ak yow Zé. nee na ko Zé dañoo naroon a daje Zé ma gaañ ñu fomm combat bi waaye Zé jekk naa mm. ndax gis naa léegi Fils de Balla waaye jekk na. dugg si Fils de Balla bi mu dugg see confiance bi mu àndal ak gëm-gëm bi mu àndal. jekk na ñaari punkal bu ñu dajee ci ngoon jekk bëre bu neex jili ndaw lu neex tey. lu neex tey sur le plan la ñoom. tey jili ku daan fan la mën a yóbbu. ah ci kaw. kaw. ci kaw mooy ñaan mu neex ak mu naqari na gaa yi xaara général Malika bi tey bu génnee ci combat bi wartu ma laaj Gris ah, na jaadu na. jaadu na jaadu na. fils de mi tey bu daanee. Hmm. wartu mën a wartu mën a laaj Gris 2. jaadu na ñoom Diène Kaïré ana ñu. na ñoom Coenche ana ñu. ah li ma wax jël dama ko min buur maa la ko ko min jëli ma ko noonu di wàcc ci oto bi. moom booy Malika ma ngay rëdd. ma ngay bind am na lu muy bind moom booy Malika ndeysaan ñoom ñaar dañoo yàgg dem nañ fule fekk naa leen gaal gi fekk naa leen Adrien Senghor fekk naa leen laa fekk naa leen yoor fekk naa leen Niodior ñoom ñaar ñuy ànd. ñoom kii daa dugg si sol koppati kee dugg si sol koppati. lu loolu ji. ma jaaxal. est-ce que bokkuñu sëriñ est-ce que bokkuñu. ah man de koppati ci Modou xamee woon. Modou Lo dee ko fi indi woon moo ko fi indi. bi moo ko fi indi woon koppati bu weex. ko di lamb ci jeex ci réew bi desatul fenn. neex a faral dimanche jii lii <laughs> ay waay bés ay bés mbég sulu bu ndaw sulu bu ndaw ñu koy xaar. ay buur ndeysaan kenn moom buur géwal ndeysaan buy analyser lamb soxol day sedd bam ne jàpp na ko général la ngay dugg si. Adama arriéral ànd ak moom dugg. ma ngay yëngu. yëngu na ma ngay dugg. njaxas def na njaxas ndeysaan sol koppati. ma ngay dugg si ci compétition bi général ngay dugg ci lu mu miin ndeysaan général Malika stade bi mu dugg ci tey naan bu ne laale na fay moom stade bi mu dugg ci tey compétition bu ne jël na ko moom général Malika ndaanaan la ci làmb ndeysaan déggal buur nee na ko lu la métti sa diggante fils de Balla lan menacé nga ko stade fekk nga ko Ousmane menacé fekk nga ko Adrien Senghor menacé ko fekk nga ko mu ne ndeysaan buur maa bëgg <laughs> nee na ko lan la général Malika sa diggante ak Balla lan la ndeysaan loolu ruq buy tàng la déedéet neen ko may leen ko mu dugg général Malika ngi noonu di dugg si ci stade bi ndeysaan moom doomu Malika bi miin na lii bu daan dugg si terrain. déet waay. bilaay walaay wa taalaay. yi noo yow Fils de Balla waaw yow Fils de Balla duñu moroomam taxuñoo sax jóg. xeexoo lu mu indi fekk ko fi mën nañoo bëri xeex lu mu bëgg rek ragaluñ loolu. dégg nga ñu àndal day si. Zé bu dugg ma ngay fëgg galax day dugg rek siif. maa wax lii dama ni Zé bu duggee day siif. loo wax ci lamb nag ambianceur la. waaw la. daa mën bés. daa am fu mu jóge am fu mu jëm. wallaay bu nee naa le général est là. mu ngi nii nee na fii sa balla bu ñu bëree pare di nga tóoj. sa ah, wax de wóoruma ji li. est-ce dina tóoj. wóoruma ji li. est-ce que fils naa tóoj. Ah, la ko wax de nee na ko kuy soldat di nga maat. ndax général bay na ci lamb ji. général ko wax waxuma ko. moo ko wax ay waxam la. moo ko wax ay waxam sax daa am maaj. waa man Obama Ada Bakhoum boole ci bi. man de loolu yéem na ma. Bakhoum bu bu Ama Baldé. bu Ama ci boole. est-ce ah, de. Bakhoum ay bagages Bakhoum te daa mel ne ci yéen. waa kii sama mbër la maa koy ah? waa général bi ma ne que maa man mbëru ñeme rek laay engagé mu ragal aw ma ci affaire. maa ko bëgg. Bakhoum ne waxam saa yu waxee ragal. déedéet waa kuy ragal. xaw ma de. kan mooy xoolasee. ma ngay sot ma sot. ma ngay sotti général Malika jëlaat na beneen butéel ma ngay sotti ma ngay sotti général ma ngay def ay débat débam buur géwal ay débat déb lay def li yëpp tegtal la miin na ko jaar na coom bi fa buur jaar na coom bi bëre fa jaar na coom bi bëre fa jaar gànjaay bëre fa jaar gànjaay bëre Fatick bëre fa jaay joor joor bëre fa yaa ko bëre fa ay coom bi jaay Joal ay coom bi sama dëkk góor yi ku ne jaar waay waali maa ngi lay nuyu waali kenn nuyu aywaay eh, maa ngi nuyu ji waay ji jàkk ku eh, eh, maa duggee maa ngi koy jaale si coom bi lamb ko bëgg nee bu ma duggee ci lamb ñëppay tóot neex day mën boo xam ne boo bàkkoo mu neex déedéet soo ma nga noonu ma ngay léem Adama ñëwal si général ngay dugg si ci stade général a ngi noonu di dugg si général a ngi noonu di dugg si ndeysaan général a ngi noonu di dugg xale baa ngi noonu di dugg si ndeysaan am na muy samp ci suuf baal ma nga ma ma ngay ma ngay léemu moom général ma ngay léemu moom doomu Malika baa ngay rëdd ma ngay rëdd daw na dogali stade ba yuuxu nañ